ngi sa ginnaaw fas ko yéene ànd ak yow euh, ba keroog nga naan nu euh, jaa ngeen jëf saa su la ne sëñ bi ne jaajëf rek nga noonu jaa ngeen jëf ah ñu delluwaat ci suñu yite incha allah loolu daal ci gàttal lañ amoon lu ñuy wax rek di santaat yàlla bu baax di julli ci nabil Moustapha di santaat Serigne Touba di la santit nag yow mu jiite liggéey bi ci xajal ci ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf kon ñu jox kàddu gi monsieur le maire Abdou Lahad ginnaaw kàddu yi Serigne Ousmane yi kon bisimilah. bismillahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani ñoo ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant.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 di la déglu ci saa bu ngeen ne tàmbali leen ko rek ñu tàmbali ko ak produit euh, service des yi kon loolu rek laa amoon te li may wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa rahmatullah kon xam naa ñu wéyal ndigal rek dafa mel ne njabootug maam Cheikh Rahima Fall gi fi teew sëriñ daam sooda mooy ndawul sëriñ am di Moodu Mbenda kon sëñ daam sëriñ bi nee na nga ñëw yëkkati ci ay kàddu laata ñuy jox sëriñ Maam Mor bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakatuhu